loon génn maam jaara fan yow laa dégg nga naan Bougadeli doo ci wax da koy yërëm parce que dafa am ndey am baay am mais mais Bougadeli sàcc la c'est un traître économie Sénégal est-ce que yow jàng nga est-ce que yow député bi nga nekk xam nga am nga valeur bi maam jaara fan est-ce que yow xam nga valeur u député yow est-ce que yow am nga niveau na être député une dame députée est-ce que yow am nga am nga niveau bi parce que yow soo jàngee Nek nit ku jang war nga xamni ni ki nga xamni dañ ko téye ci auto mu nan muy yakuna yoré ay billet koku moy danel économie réew mi koku c'est un criminel mais waro ko yeureum yeureumal askan wi parce que tu perçois ton salaire parce que yang ngi et puis da nga may sa lamine permis quoi tu parles trop da nga bari wax quoi gëno fi musken di raj raj gëno fi pank ken man jigen la buy wax ak yow man d'habitude du may wax ak nit d'habitude du may tudd turu nit di ko wax ci sama live mais yow dama lay adresser la parole directement boo nee da ngaa yërëm Bougadélly rek mooy sa jàng wul bu dee da ngaa yërëm Bougadélly yërëm ay doomam rek mooy yow fonction bi nga yor mérité wuloo ko xamoo valeur du sa niveau parce que boo xamee réew nu muy doxee ki nga xam ne daf ko jàpp ci foo billet mu naan wuy yàqu naa kooku weer na boppam déjà kooku def na jugement muy number one number vidéo bobu ñi ko génne amulo pour wax len lenn parce que sacc bi lañu wara waxal il doit être en prison warul am droit di jéem porter plainte ma samba wala ma demba il ne doit pas être libre il devait entrer en prison et puis crime le crime ci dëkk nit di defar faux billet bañ ko ci japp yenn milliards yi mu yoré ko di circuler ak mom bañ téye ko bayi len sen sen sen neexal ak encore nga waxat benen affaire bu garaaw bu tu te rend même pas compte ah motax nga jege patriote ma ngi xam lu nga jege patriote kay mo xol nak man nax ma fay jafé dé ta kay mo xol gis nga kuma xol ba la le taw taat da ngay feeñ par A da ngay feeñ ou B da ngay feeñ yow mam jaara fam yow lay waxal li tax nga jege patriote yi ci xam naa ko mhm. nee nga da nga ma sa dégg kilifa ak ñoom ñoomi Simon Y'en a marre ñuy tudd góor gi nga woo leen artu leen ñu la non non non yaay booy du ñun de waxuñu ko kon danga leen di jege pour ñu bañ a tudd Ablaye Wade lu mu fi jot a def ci ñaaw téefam moom ak doomam loolu ngay bañ ah donc moo tax nga jege patriote yi pour ñu bàyyi la fi Ablaye Wade ak Karim Wade seen ñaaw téef gu metti gi ñuy def ci Sénégal ak yàq gi ñu yàq réew mi moo tax nga côtoyé leen xaritoo leen. ah yow da ngay politique ci biir politique yow c'est-à-dire da nga fekk politique ngay politikaat ci biir politique encore nga ciy politikaat encore pour dànkaaf ah da nga dugg jege patriote pour dànkaafu leen man mënuloo ma dara man mënuloo ma dara parce que xam nga lu tax bugguma foo te da nga fos te tôt ou tard di nga feeñ yaa ngi nëbb nag jege bu baax jege président bu baax. Check patriote yi bu baax waaye man mënoo maa nax man li may xeeñ ci yow neexuma ku wax ci góor gi ñoom yaa naa maar nga génn dànkaafu leen yow yaay kan parce que dañ laa jox poste député teral la teeru la moo tax ak li ya ah, mu yàqee réew mi yëpp Ablaye Wade ak waa këram waa léegi xanaa léegi war association Yewwi Askan Wi mouvement Yewwi Askan Wi dajaloo Yewwi Askan Wi xanaa léegi yow war ngaa wax ci loolu lu ci sa xalaat c'est normal Mame Diarra Fam yow looy waxal c'est normal xolal looy wax na nga sóoraale ñu mel ni man man de duma la may dara xam nga lu tax bëgguma nit bu foo man jub laa bëgg ci nit dëggu laa bëgg ci nit mënoo dànkaafoo patriote yi pour du ñu wax ci Ablaye Wade ak Singili Wade ak Karim Wade liñ yàq ci biir Sénégal moo moo kenn doo ndayu kenn doo bàyyi kenn gënoo ñoo pànk ñoo la gën a pànk téeméeri junni yoon man suma la gën a pànk téeméeri junni yoon te loo ma jaay xola maa la mën déggoo ma de maa ci zaayir mën la ci baax ci lépp nag na bu bëgg nekk député bu da ngay am niveau bi xam sa nu mu xam ni xaalis yàq bu bëggee day yàq économie réew crime la Boughazelli ne devait pas être en liberté il doit il doit il devait être en prison actuellement te ñu génne vidéo bi bu leen nexé génne ko bu dee Amérique fédérale lañ lay génne fédéral ce vidéo day circuler ci 50 états yépp ñëpp diko ko ñu wane la parce que crime économique nga wax juge bi di la juger ñëpp di dégg nombre bi daan bi ñu lay dóor ñu di la ko dóor ñaf la ci biir prison bi nga nek criminel life time prison lañ lay tej lifetime barke rasulullah fii moo tax mu développé ñun nag li nga delloo ginnaaw genre yu mel ni yow moo tax Sénégal di dellu ginnaaw man du ma la may dara kenn du tudd Ablaye Wade moo tax ngay dànkaafu ñoom kilifa ak di leen fàttali ñoom ñoo fi jëlee góor gi ah, nga mel na ku naan leen ñaw gat sa yéen a fi jëlee góor gi non bàyyi leen seen fausseté bi ko moi je n'aime pas ça vraiment je n'aime pas ang inyong parede parni sa mga ride sa mga kibimi ninyo basta amyo kami ni budon tani ngati batla sax dama kay wax parce que daf man nakari quoi daf man nakari buguma gis poset